kenn warul traîner ak ñoom ay mais Farba Ngom biir Farba Ngom la waaw biir assemblée nationale mhm. la nekk di jiñ nit ñi ay corruption mhm. biir assemblée Thierno Alassane Sall mu ngi naan day porter plainte mhm. nangam sangam pour ñu leeral li nekk ci diggante ñaari cheikh yi mais moom lu ko Farba Ngom wax biir assemblée nationale loolu xanaa jarul plainte xanaa loolu jarul toppaate Farba Ngom moom ñaata lañ sàcc xaalis ci këram près près de un milliard. près de un milliard. Oui. donc waa Benno Bokk révé euh, avéré. ça ne pose aucun problème boo ko euh, boo demee rek ci comment dire ci euh, rapport cour de comptes bi si Covid yi. mën nga ci jàpp dix ci ñoom. rapport Covid yi rek. minimum minimum. minimum mën nga ci jàpp dix personnes si ñoom. waxuma ay <laughs> Mbaye Prodac waxuma ay Omar Ñebbe waxuma ay Mamour 94 milliards. Mm-hmm. mais gars yi ay scandale rek lañ fi def le ministre là bi ñu fi indi suñuy orix mu jël benn bi dibi ko. mais dibi boobu daf ko xeeb. mais euh, euh, l'autre là. Euh, Sall Abdou Karim Sall Abdou Karim Sall oui. mais loolu daf ko mais loolu am na yeneen dëkk yoo xamante ni su ko fa defoon un ministre qui fait mm-hmm. non seulement dañ koy destituer mais ay poursuites ñoo koy topp parce que loo xamante ni état du Sénégal lañ ko may moom mu jël ko yóbbu ko këram ñoo koy ndawal. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni man jàpp naa ne jusqu'à présent su fi waa Bennoo nekkee di euh, ndagar wale c'est parce que pouvoir bi dafa deful ci ñoom lenn am na sax dossier yoo xamante ni je suis d'accord que dañ ko war a leeralal leeral leeral des enquêtes sérieuses mhm. pour véritablement xool fu dëgg bi féete mhm. mais am na ci dossier yoo xamante ni Pape Matar man jàpp naa ne jaruloon ay toog di xaar ay deux mois trois mois mhm. surtout ay Mame Mbaye Niang ñeneen ak ñeneen nañ leen dóor ci kaso bi coow li jeex parce que li ñu fi def def na na ne weng moom euh, le ministre de la justice Ibrahima Anne mi ngi annoncé euh, que ni euh, daañu mën a enquête ci mbirum les deux cher ñenn ñi quand di étonné wu parce que au moins ñuy wax waxu enquête am na ay enquêtes yoo xamante ni ñu ngi sur la table du procureur ba tey ji comme ni ko Mambiram waxee ay lenteur nañ si dégg est-ce que laata ñuy ibbiwaat beneen enquête du ñu jéem a quand même lijjanti yi nga xamante ni ñu ngi ci taabal procureur bi ay magistrat def ko soit de la cour des comptes wala ñi nga xamante ni ñoom. ñoo doon liggéey of nag ak yu ni mel. mais l'un n'exclut pas l'autre autant dañu war a poursuivre dañ dañu war a càmbar euh, enquêtes yi nga xam ne ñu ngi ci sur la table du procureur. Mm-hmm. autant dossier bi aussi man je man euh, sur ce sur sur comment dirais sur je pense même que euh, comment dirais pouvoir devait prendre des mesures conservatoires. parce que dans mesure où il a des accusations sur. ah non Ibrahima doo yeggali mu munoo nangu fële ne <laughs> da bañ njort que euh, un ministre boo xam ne <laughs> son DG la la accusé de corruption de de de, de wala de je sais pas de détournement wala yooyu. Euh, en attendant euh, enquête bi parce que si les ministres et et des enquêtes sur lui. Uh-huh. mais il a la possibilité de de comment dirais-je de de de, de soit de faire disparaître les preuves wala de faire de, la subordination de témoin. Mm -hmm. donc man comme ça se passe dans tous les pays dans dans dans tous les grands pays. que quand quelqu'un est soupçonné Mamadou Mamadou Seck defoon na ko fii c'est je que malheureusement pour nous c'est le seul exemple qu'on arrive encore à citer quand il a eu des soupçons de détournement qui ont pesé sur lui dans sa gestion de la Somicoa Somi Somicoa waaw la société de Abdourahmane Agne la après mais il a démissionné il a démissionné il est allé se défendre devant le tribunal ba ñu ba ko mais dans ce dossier là jusqu'à présent de soupçon de hmm? Cheikh Dieng moo def ay accusation mais accusation mooy indi soupçon. <laughs> non non soupçon <laughs> maanaam ki ngay wax doon Mamadou Seck lu ne weng la Sénégalais yu bëri doon intéressé wu moo ko def ak defu ko. Mm-hmm. mais bi moom Cheikh Dieng moo waxi waxam. non Mamadou Seck. Mamadou Seck aussi c'était des accusations qui pesaient sur lui comme quoi dafa détourner de l'argent au niveau de la Somicoa. ba mm. léegi c'est la même chose encore que Somicoa c'est une société privée. Sobi mm. la appartient à la famille Agne les les Abdourahim mm-hmm. mais quand il y a eu ces soupçons là il est allé blanchir devant il est allé défendre ba setal ko. Mm-hmm. après il est revenu dans le gouvernement. je pas si vous rappelez. Oui. en ce il était ministre des finances. Mm-hmm. mais bii c'est l'argent public. c'est l'argent public. donc mais dama je reviens encore à mon postulat de départ. c'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre ou bien les uns n'excluent pas les consacrer plus de temps à ces dossiers-là plutôt que de parler de de de voilà de, de de superposer des enquêtes à des enquêtes mais man je suis pour que les enquêtes qu'elles soient menées sur tout ce qui a euh, trait euh, ou bien à, tout ce qui a rapport sur la gestion des des publics que ce soit la gestion précédente que ce soit l'actuelle gestion. Mm-hmm. <laughs> alors euh, Mame Birame euh, tey même question bi laa lay posé moom ministre mi annoncé enquête am na enquête yoo xamante ni ñu ngi ci taabalu procureur bi dañuy xaar euh, voilà ay suite wala ay poursuite ou en tout cas lu mu munti doon mais ba tey dégguñu si dara moom mi annoncé waat yéen enquête est-ce que quand mun ñu commencer di di di di di doxalee ak par ordre de de de priorité. non moom kay mënu fee jéggi dossier yi mu fekk ni naan rek mu ngi enquête peut-être que mun nañu defandoo yëpp. mais bu demee ba mu nar a am suite. yaakaar naa ne balaa booboo am suite yeneen ni dinañu am suite. faut faut eh, mais faut pas oublier aussi que le procureur a l'opportunité de poursuivre. Oui. c'est lui qui a l'opportunité de poursuivre. moom moo moom mooy wax ne bii dama koy poursuivre bii dama koy. bii dama koy et le procureur est sous tutelle du ministre. de la justice sous la tutelle du ministre de la justice. waaw mooy mooy li ñuy wax rek. Mm-hmm. moom kay dossier prioritaire yi fi ne. mooy gestion Macky Sall. gestion Macky Sall te Macky Sall sax si boppam moom il doit être mis en accusation parce que bu ñu naan kii dafa jël lii kii dafa jël lee mais Macky Sall moo jël li gën a rëy. Mm-hmm. te ku fi jël tamit moom moo la encouragé. képp képp képp ah. Cheikh Oumar ba ñu ko ne ñebe kilo mille ñu épinglé ko si. Mm-hmm. directeur la woon Macky moo ko defaat ministre après. l'autre là délégué ministre délégué la woon Moustapha Diop. Mm-hmm. bu Louga. bu waa Cour des comptes ñëwee ne dañ koy auditer da leen a dàq ci biti ne doo leen ko ne duñ ko audité. ministre délégué la jóge Macky Sall def ko ministre plein. donc li ñuy wax ci dëkk bi yëpp ndey mbili gi mooy Macky Sall man nag je ah, suis étonné ñu bàyyi ko mu nekk au service d'un autre pays d'un autre pays ba pare di gérer l'opposition du Sénégal kooku moom pouvoir bi war nañ koo seet bu baax ba pare xool les flux financiers yi nga xamante ne nii mën nañu dugg ci dëkk bi wala Macky Sall mën na ko distribuer parce que waaye ci ay milliards la tëdd de bu nekkee ay gars yu ndaw ndawaan yi ñoo jël ay quatre-vingt-quatorze milliards ak yooyu imaginer chef de gang bi moom lan la war a jël. da nga ragal conflit d'intérêt. Ah, ah, mais mais c'est ça. mënuloo nekk au service de notre pays ba pare di mën état politique au Sénégal ñaar yooyu mënul ànd. soit day démissionner ci parti bu mu nekk au niveau de la France. continuer di def fii sa politique. ba pare ñu koy verser li nga xamante ni war nañ ko ko verser yëpp en tant que ancien chef d'État. ok mais mënuloo nekk sous les ordres de Macron euh, un autre chef d'État ba pare di mëlewu de la politique intérieure de notre pays loolu du yoon. lan ngay ñëw lan ngay règlement mbiram parce que Sénégal dafa woote souveraineté woote affirmation de de soi euh, tey jii euh, moom euh, Macky Sall di liggéey ak réew boo xamante ni nos relations quand même sont quelque part tendues da nga ragal mu bokk si ñuy déstabiliser wala ñuy mettre la pression pour que souveraineté wala souverainisme bi ñuy wootee mu bañ a antu. mais mais yooyu yooyu yëpp. yooyu yëpp am na si de ñoo xamante ni ñu ngi wër plateau télévision yi di wax mais ñoom ak Macky Sall daanaka ñoo bokk fu ñuy roote tout simplement bu bu France bu ñu demee ba dégg ba jàpp na ñoom le nouveau pouvoir là dafa bëgg def le tout pour séparer wu ak ñoom. ñu am Macky Sall comme leur euh, employé. mais xam nga ne dañu jéem a def le tout pour souveraineté boobu ñooñu di kaas pour séparer ak ñoom bañ a am. tout simplement. naka la koy defee mais li euh, assemblée nationale a ngi fi euh, leneen ak leneen a ngi fi mais également mbedd maa ngi fi tout ça ay manipulation ak ay euh, sabotage la yoo xamante ne nii Macky Sall mun na koo def te du ko teg ci lenn lu dul bugguñu Sénégal tàggoog France. bu boobaa nag c'est au pouvoir mais xam nga ñu ngi naan ay les médias médias yi dañu tëj patati patata parce que xaalis bi ñu leen doon perfuser mais Macky Sall nu mu leen daan perfuser mun na ko kon ne leen ko perfuser de. mais xaalis bu mu yor du jeex. Macky Macky kay ci ay montagne milliards la tëdd. nee naa la 94 suñ ko toppee koo xamante ni subordonné donneem la moom imaginer ñaata la war a jël. vingt milliards yi nekkoon euh, fonds politique yóbbaale na ak lan la yóbbaale. donc kooku rek mun na toll foofu mais di perfuser toute la presse bi au Sénégal chaque jour ñu nekk di tiire ci le pouvoir en place. loolu lan moo gën a gaaw ci déstabiliser un pouvoir bu dul loolu. ah mesure conservatoire euh, yaa ko wax léegi Ibrahima Anne est-ce que jotul quand même euh, état bi wala pouvoir bi jël ko ci ñi ñi fiy jóge euh, quand même balaa ñuy déstabiliser réew mi parce que lii Mame Birame wax ma dégg ko aussi ci ay kilifa yi ñu yore actuellement pouvoir bi mooy que ay opposants entre guillemets milliardaires ñoom ñoo fi nekk. bon man daal li ma li ma waxoon sànq rek laay laay waxaat maanaam que. <laughs> qu'on ne peut pas on ne peut pas poursuivre ou bien. mais mais monsieur conservatoire mën na am mën na. interdire aux gens de circuler. <laughs> oui sur la base de simple euh, de de de de de, de simple soupçon. Mhm. Euh, li ñu li ñu li li li li. léegi de simple soupçon nga bëgg la ministre démissionné. <laughs> de simple soupçon pour ministre bi démissionne. non non non même, si le ministre ne démissionne pas il peut il, il peut être démis en attendant la lumière jaillisse. je crois que. waaw <laughs> ah, ñee tamit ah, ñee tamit mën nañ leen tëj ci en attendant la lumière jaillisse. déedéet loolu loolu ça pas parce que la prison la prison est l'exception la liberté est la règle. Euh. donc on dans le cadre dans système juridique boo xam ne jàpp nañ ne mi ngi fonctionner donc dans ce cas-là on ne peut pas sur la base de simple man je je suis très cohérent avec moi-même su fekkee ne ñii am na lu ñu def te mi ngi ci ay rapport dañ ko yóbbu fañ ko war a yóbbu li ñuy naan fu mu wax na doonee benn su fekkee ne loolu am na mais on qu'on les condamne damm caabi ji mais su fekkee ne defuñu ko nan leen nan nan leen bàyyi ñu dox seen soxla man c'est ça que j'ai man je pour une justice boo xam ne la justice inquisitoriale en tout cas di ko jaajëfal bu baax a baax moom Ibrahima Anne di jaajëfal aussi maam Biram wàcc loo ndiir ak DJ yu ñoo nekkoon ci wàllum technique bi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Sénégal yi ñu doon topp ci page YouTube Walfadjri ak ci 99 point 0 ici à Dakar leen jox rendez-vous demain incha allah ci benn keppaar gi